dëkku gay ne mooy sunu gaal li fi jógee bësin dëggal ma bësin bëgg naa leen asalaamaaleykum sëñ bi maa ngi tudd Malick Diop Malick Diop fekk nañ la fi nga xamante ne mooy arrêt Dakar dem dëkk yi euh, est-ce que bi nga fi toogee ba léegi yàgg na non non pas tellement ay cinq minutes lay war a mat rek hmm. waaw yow fa di ngay faral di toog lu yàgg xaar attente bi décalage bi est-ce que dinay gudd waaw des fois daal moom bu arrêt bi moom da ngay toog di xaar lu yàgg pour bis mën yegg si yóbbu leen des moom daf ñuy arrivé moom fa fële géejawaay. nan nga gisee euh, transport Dakar dem dikk ak ak yeneen yeneen kii. transport waaw am nañ différence moom. parce que bu dul dara sax Dakar dem dikk yi moom bu fekkee da ngay xëy ngay liggéey boo ko jëlee si lay gën a gaaw ko yeneen ñooy daj kiiwu transport yi. Mm-hmm. parce que yenn comme tataay boo ko yéegee di xëy dañ lay tardel ci yoon bi. bu dee Dakar dem dëkk bi ñoom respecté nañ arrêt yi respecté nañ nombu saate yi même kaasu café sax boo ko yoree ñoom duñ la waaw. léegi lan nga bëggoon ñu yokk ko quoi loo xamante ne buñ ko ci yokkoon dina gën a neex. non nañ ñu gën a yokkal bii si rek lool moom bu ñu ko defalee duñu arrangé gaa yi tamit xam ne tamit bu mag yéegee si oto wala koo xamante ni ay tànkam baaxul dañoo war a jóg may ko mu toog parce que loolu daal laa am loo xam moom dinaa ko si yokk.